décret baa ngi noonu nag président de la république Macky sal moo ko génne te dafa jaadu viol yi viol képp ku fi violeeti da lay ci kaso bi man xam ana viol ana viol lu ngeen di violé ah boo amee trent mille am jabar soixante mille nga am jabar quinze mille sama léegi boo ko defee am jabar ndax jigéen ñi laajatuñ dara waaye jàpp jigéen invité ko sa kër naan dama laa nopp c'est-à-dire damaa bëgg tëdd ak yow ndaw si bañ nga force koo force force ba rey doomi jàmbur pour lan pour lan loolu lu ko fi jar bànneexub cinq minutes masatul sax léegi cinq minutes ndax góor ñu wératuñu léegi ay seconde la seconde ñu tëj la si yow dix ans fukki ati kasu ci ci ci ci trois secondes pour lan ah matul dara fóon ko tëdd ci kawam violé ko lor doomu jàmbur yàqam njàngam baa ngi yàq ab liggéeyam baa ngi yàq avenir am pour lan loolu pour lan quinze mille ngeen yàq ak dix mille yi dajal leen ko takk ci soxna boo takkee sa soxna nag yaa moom sa soxna loola neex ngay def bu la neexee tëdd bu la neexee def loola neex waaye jàpp doomu jàng joo ne amul sax ay ween xale bu tuuti juddeegul di jàng ponkal mu am 45 ans mbaa 30 ans di tëddee xale bu ndaw ku fi tëddee ci dañ laa la ràpp ci kado bi tës tëj la waaw pour lan ah lu dara même pas 15 minutes même pas 10 minutes ah? góor ñi léegi doon daanaka du ñu ay góor koo ci fon mu nelaw ah ay 15 secondes la léegi léegi du góor ñi léegi 15 secondes la ni am daan na laajte dina ah waaye dama waaye ah garaaw ah, ah. pour lan loolu ñàkk ngeen fere trop am na yoo xam ne ngeen ko bàyyi na jaadoo waaye yéen tamit jigéen ñi jug seen bopp waaw góor na dama laa nopp léegi jigéen ñi ñooy déplacé jël seen taxi dem ci néegu góor di seeti góor góor góor goo xam ne toog na 30 xamul jigéen ah nga ne laaj sol sipp su gàtt sol setengoo say ween nekk ci def ba duñ la yéen yéenay reylu seen bopp léegi mbedd mi doo dox deux mètres te gisoo jigéen ñi nii lañuy def na laaj génn góor ñi tamit ay góor lañ ah vélo yi daan na ko yéen jigéen ñi yéen a ko indi seeti góor lu ngeen seeti góor ah ana jigéen di déplacé di seeti góor bu njëkk ba jigéen danaan toog biir këram góor fekk ko fa wax ay waay waajuram ñu may ko ko muy soxnaam waaye léegi jigéen ñee maye seen bopp lambar lambar dem kenn ñoom maajoor maajoor man yow laa seet si tey waaye yow waa ah c'est man damaa la ko maa joor lagar lagar dem ca may ga ba jënd ko sandis ah jigéen ñi léegi ay borset lañ leen di ay omelette ay nen pour lan ah, jënd la ñaari nen rek fukki dara bi expecté rek mburu mu wow jox la ko nga ne ko seet ci yéey ko naanum ndox ñu violé la yow fukki dara mu ne nga xam ne buñ la ci fóonee na fóonee sax mu rees lu ngeen koy doyee jigéen ñi téye leen ci seen bopp li ngeen yor dafa seer am na valeur mooy seen avenir waaye jigéen ñi lagar la yorob saagam dem kër maajoor yor seen saagi nag dara néew ci nag loolu ay lipp leebar ak i pomaat kese buñu demee lipp leebar nag maajoor di sarme maajoor na la fuuf ray la na nga daal di sorox ah fa dañ lay tëj léegi sax jigéen ju fekkeeti góor dañ lay tëj góor gu violé tamit dañ lay tëj ne jigéen ñi sol lu jot muuru am diine am lislaam waaye sol mi ni jël ay ween pacal ween yi mal na ay doomu xaal pàccal ko fekk ju góor mu ne ci ci sa bopp naa la ah, nga nag ay yow ndànk yi dafa ndànk dafa ndànk nag ci la lay raye ngëj ku fi veela ti dañ la tëj jigéen ju fa solu gàtt dañ la tëj ku fi daf yaramu neen dañ la tëj ci kaso bi ngëj ba ma déggati ko rek ñàkk ngeen fay def trop waay